Kia Kia Namba Kau wuyu nafis? fi sa téléphone mi ngi sonné boo yaakaaree naa la bàyyi ngay kafe lu <laughs> neex ndax nga sa bopp wuyu de bàndee baayam hmm. noonu fi yow da ngaa lakkale ah noonu fi da ngaa yow yaa war a ñëw ci boppam yow yaa war a jënd billet ñëw téléphone moom laay wuyoo waa d'accord xaaral après ma rappelé la dégg bisu waa déedéet man suukaruma woon Kumbang, kumbang, Iya. Kumba sama kafe gi ma segg léegi génn di wax na fi téléphone Fek ñu xorom ko te man sama kafe, kumbang lu tangga fek may sama kafe nga xoromal mako. ay kiya kiya yenn gor mo moomu ko kiya kiya nan la meuna jele kafe diko xorom Amna lo xamne waro ko sax xala. yow li nga sañ looloo ci gëna ndaw de. kiya man duma wadde. de. doo waat man loolu duma ko def bu fekkee nag kii yaa da jël kafe gi xorom ko bëgg ma ko ci kii yaa yàlla ma yàlla teg yow waaye bàyyi naa la ak yow <laughs> ay fu ñu jëm waaye yéen kii war naa fekk may sëgg sama kafe mu xoromal ma kafe gi ki ni nañ nar a dëkk ok hmm. paa Mas, maas dangaa mënta bàyyi saa bu sa jabar joteeg sa jabaru mag ji da nga faral sa jabaru mag ji ah yow ya daal doo changé mukk ci àdduna yaay xam nga ni kumba moo tooñ kiyaa gis nga doful bay jaawale xorom ak suukar kumba mau xorom café bi <laughs> Ya xamoon ya, kumba de elle est capable de tout mako doxane doxaan ko indi ko ci bir keur gi li may def si biir néeg bii nii man rek mako xam doxane nga ku bax de gis nga kiya mom kiya ci bopam mo jaxaso gis nga xaritam boobu ñuy wax nafi bu ko wowe day sa li olof nan ko la abali beut fu ko neex ngay xol moko dal nak koku tukki na rek mu tapet ko yaakaar na ko mos a yóbbu mu tukki man xam naa kiyaa yow dangaa xamul kiyaa waaw. yaay kiya lan la def. yoo xam nga yow lan la. yaay dafa bëri jàmm gis nga yaay sax nag depuis keroog laa bëgg a wax ak yow. ñëwoon parce que li nga def keroog ci saal ba daf ma metti sama tante lan la mënee indi jàmm yow nga ne deew di fi dalee mais chaque jour ay ay ay yaay utal ngir yàlla. màgg nañ léegi. yow daa nga ne doo soppeeku ay maas sa tàppet gi kañ lay dañ ci yow maas yow da ngay ba keroog ñu lay jaag jaagi di la yóbbu yow maas sa tàntam yi da koo xamul sa tàntam yi li muy jeu boo ko xamal wallaay doo toog fi naan ma utal jàmm yow nag moom nii rek yow yow moom nii rek yow. <laughs> yaay du ma la fen de mais billaahi su wéccuwaay amoon. mu wécceeku la. waaye waaye ku ma ca ba ma ma jël fekk nga ma ca man mi weccoo doom amoon ma weccoo ak baara mi nga xam ne am na jom di joxe dépense ci kër nga yëgër yëgër topp ci ginnaawam. ak maa ci feer. loo sama mag bu góor di ma ciy lekk dama ci feer. yow nag moom sama débat yow kulóos na yaa ñàkk jom sa nopp yi kotam yooyu bala may dee nag nga nekk ci kër gi nag di yongar yongar sa xonkaay bi ngay mel ne tamaate lu xat naa ma damaa bëgg jàmm am ci kër gi yow nan la fi jàmm amee te nga ne fi tapet. fayu woo dóoroo àtte woo xeex cim